Boubacar Samb maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Boubacar Samb nga nekk délégué général chargé à l'engagement citoyen du mouvement euh, Gëm sa bopp naka nga analyser seen leader bi di Bougane Gueye Dany euh, ñu daal di arrêté ci bi nga xam ne mi ngi doon jéem a dugg ca Bakel. waaw lu ñuy naqar loola rek euh, ndaxte yaakaar naa nit jóge ci këram jóge Ndakaaru di dem Bakel muy sénégalais. dem pour euh, dimbale ñi nga xamante ni euh, tey dañoo loru ndax ndoxu fleuve bi nga xamante ni moo nangu seen kër nangu seen dëkkuwaay yi ak seen bërëbu liggéeykaay yi ñu ne la ko doo fi duggee doo leen dimbali donc loolu noonu dañ ci am ñaari naqar mooy ni euh, contraindre nañ nit mu dimbali moroomu nitam mais aussi nasaxal nañ démocratie donc lu ñuy naqarlu la Mm-hmm. est-ce que aussi Bougane nekkul doon euh, provoquer euh, ki ñi nga xamante ni ñoom ñooy nguur gi moo tax mu choisir dem si heure boobu pour dugg Bakel alors que xamoon na ni njiitu réew mi ma nga fa. mais Ndeye Comba nan la Bougane mënee provoquer si loo xamante ni amaana yëgoo woon ni sax waajaa ngi ci biir dëkk ba parce que waajooju ay action yu muy teg malheureusement sénégalais sax duñ ko yëg duñ ko dégg. tey euh, je ne vois pas amul benn notification amul benn loi amul benn directive boo xamante ni joxe nañ ko bind ne zone bi président de la république dafay ne donc bu fi kenn dugg wala bu fi kenn loolu buñ ko amoon la on pouvait dire que ni bu fa buggaan duggoon moom mooy tooñ mais loolu noonu yëpp existé wul fenn du fenn du benn yoon boo xamante ni loolu noonu existé na donc malheureusement c'est c'est quelque chose boo xamante ni dañ koy dañ koy déplorer kenn donc bu fi kenn taxaw naan euh, provocation provoqué pour lan à quel titre à quelle fin. voilà est-ce que aussi euh, ñu ngi reprocher que Bougane c'est vrai am na droit dugg ci dëkk ba mais bu fekkente ni euh, takku der yi dañu joxe consigne dafa waroon a respecter consigne boobu mais def ko daal di jalgati moo ko yóbbee lii. ma ne loi dëkk bi. ba ci loi CEDEAO moom moo ne libre circulation des personnes et des biens en zone CEDEAO plus plus particulièrement nag boo nekkee sénégalais amul fii nii Sénégal fépp fenn foo xamante ni war nañ la euh, mën a contraindre na la fii waroo fi dugg wala waroo fi jaar parce que loolu yoon constitution moo ko may nit ki donc donc donc amuñu pour interdire Bougane ne ko doo dugg ci réew mi wala doo dugg ci ci dëkk bi ak euh, si fan lañ ko teg teguñu ko fenn ko fenn. Hmm. est-ce que tey jii jarul euh, Bougane Gueye Dany changer un peu de de stratégie ni muy politiquer wala pour exister euh, politiquement dafa mel ni moom daal dafa bëgg ñu tëj ko ci kaso bi loolu daal lay wut. mais ndey ndey Kumba pour mën a exister politiquement loolu la nit yi. Bougane dafa exister politiquement moo tax nga jël sa téléphone woo ma donc bu ñu dugg si genre considération yooyu. aussi Bougane soxlawul pour euh, di def genre provocation yooyu pour lan pour nit ñi wax ci moom pas du tout Bougane c'est pas la première fois muy jël alalam di dem di dimbali ay nit loolu yàgg na koo def donc lii nii tey jii nii mooy de mooy mooy mooy xëy na tey jii nii la ko mujjee def te dina continuer di ko def dañ nañ ñaan yàlla nag lii nii yam fi mais mais mais il est habitué des faits ñi nga xamante ne nag musuñoo dimbali kenn au contraire li astut li nit ñi am la ñuy jéem a roppat si ñoom ñooñu ñoo dul dimbali nit ñooñu ñooy def pour exister mais Bougane ku ko xam si social nga ko xamee ku ko xam nii nii muy doxalee nga ko xamee donc amul lenn loo xamante ni daf koy changer. est-ce que finalement ndimbal bi nga xam ne coalition euh, euh, sàmm sa kàddu jëloon nañ ko pour yóbbul ko waa Bakel finalement est-ce que euh, jot nañ si ndimbal boobu walla naka la deme waaw jot nañ si euh, ndaxte le président Bougane dafa demandé woon euh, à la présidente Anta Babacar ak Thierno Bocoum pour que ñu continuer ñoom dem distribuer ji li nga xamante ni moom moo leen fi indi donc ñoom it dem nañ euh, def nañ liggéey boobu ñëwaat nañ fekk ko Bakel fi nga xamante ni mooy gendarmerie biñ ko téye donc dañ naan alhamdulilah li ñu fa yóbbu woon yóbbu nañ ko donc mission accomplie mais tamit boo xam ne dafa am une tâche indélébile tâche boo xam ne dootul dañ mukk si àdduna d'accord euh, tey ji euh, même temps euh, bi loolu di xew gis nga Ousmane Sonko mi ngi daal di euh, organiser benn meeting bu mag a mag naka nga gisee organisation meeting boobu. waaw loolu moom lu ñuy ñaawlu la parce que meeting boobu du heure bi la war a am du heure bii nga xam ne sénégalais dañu xiif du heure bi nga xam ne sénégalais yi dañoo jaaxle. du heure bi nga xam ne sénégalais yi koo ci romb euh, compteur am compteur woyofalam mu ngi naan tintin dégg nga ni la suba euh, dañuy yokk li nga xamante ni moom mooy euh, coupure courant yi dafay yokk donc démb démb rek dégg nga ñu wax ko donc donc dëkk bi su bi nga xamante ni tey nit ki dafay bëgg a dundal doomam ndekki añ reer mu tëkko yaakaar naa du dëkk boobu noonu la ñu war a mitingee naan ay euh, dajale nañ ay cinq cent millions ak euh, lu mel noonu wala un milliard lañ bëgg dajale pour def ko ci politique amul benn sens. Mm-hmm. Euh, ñu gis ni ci meeting bi Ousmane Sonko ratewul benn yoon opposition bi encore mi ngi menacé opposition bi naka nga gisee le fait que à chaque fois Ousmane Sonko dafay attaquer l'opposition sénégalaise. xam nga ndey kumba dañuy ne ku moddoo ku woddoo làmmiñ boo noppee rafle loolu moo dal Ousmane Sonko moo tax dañ ko bàyyi rek muy wax bés bu noppee rek rafle na hmm. bës bu noppee rek nit ñi doo existence politique am dafay jeex ginnaaw nag moom wax la mëne ñun dañ ñu bàyyi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi ñuy taxawu sénégalais yi Euh, ñu gis ni euh, Barthélémy Diaz ak kile di Bougane Gueye Dany seen diggante rataxul woon mais tey jii ngeen bokk benn coalition euh, di sàmm sa kàddu lool nag ñu bëri sax mënuñ ko comprendre lu ko waral. waaw parce que ñoom ñaar ñëpp ku si nekk da nga prendre la dessus parce que la dessus du lenn lu dul Sénégal xëy na du ma ne woon seen diggante ñaar dafa ñagas mais xëy na bu amoon tamit lu leen séparé woon question de. vision la rek wala du ma ne sa vision la mais xëy na réeroo la rek parce que bés bi ñu waxtaanee ñoom retrouvé wu nañ ci lu bëri balaa ngeen ci sori donc am na am na lu bëri loo xamante ni euh, ñoom retrouvé wu nañ si donc bi ñu waxtaanee euh, waxtaan nañ déggoo nañ donc alhamdulilah euh, dañ naan rek alhamdulilah parce que ñoom ñëpp le dessus bi jël. moom mooy euh, Sénégal euh, te Sénégal moo ñu ñor moo tax ils se sont retrouvés waaw si seen euh, ndaje bu mujj bi sax gisuñ si comme nu mu tuddati Déthié Fall lu ni mel lan moo ko waral exactement bi ngeen di lancer seen coalition Sàmm Sa Kàddu waaw Déthié nekk fi woon mais il a été représenté par Abdourahmane Sall mhm. le responsable des cadres mu ngi toogoon noonu à droite ci présidium bi donc euh, nekk fi waaye teewal nañ ko yónnee na pour ñu teewal ko. d'accord fi ñu toll nii ak dëkk bi ni mu méttee wax nga ko léegi oyofal bi sonal askan wi euh, dund gi cher lan moo tax opposition bi euh, organiser wul ba léegi marche pour wax ni askan wi sonn nañu. waaw période pré-campagne lañ ne ak nguur boo xamante ni ku bëgg a marche mu ne la doo ko fi defee loolu loolu mooy loolu mooy gàq-gàq bi loolu moo tax donc ñun ñuy demander sénégalais yi à ce que ñu jox la majorité à la coalition sàmm sa kàddu bu ñu joxee à la coalition sàmm sa kàddu alors là euh, sàmm sa kàddu bu ñu yeggee assemblée nationale dinañ contraindre exécutif bi ba dund bi wàññeeku ba tolof tolof yi nga xamante ni moom la ñuy dund ñu mun ko ñu mun ko teggi voilà merci beaucoup Boubacar euh, Samb ci tontu bi nga tontu suñuy laaj ñu ngi lay remercier bu baax a baax. voilà may fàttali ni Boubacar Samb yow yaay délégué général chargé à l'engagement citoyen du mouvement Gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany ñu ngi lay remercier bu baax a baax.